والكف ما ضربت أنسا ولا ذكرا ma qadiman aab jërë ngeen jëf mbokk yi alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV maa ngi toog ak sama grand sama xarit sama soppe lool koo xam dama ko bëgg li tax ma bëgg ko mooy dafa bëgg Seydi El Hadji Malick Sy di sët ci góor gi Moussa Allé Mbaye ngeen miin ko ci wetu Abdou Aziz Mbaye di rakkam ju sës ci moom rëkk te ko rëkk euh, grand maa ngi lay ziar. Euh, maa delloo ziar waay El sunu rak sunu rak sunu lépp sunu mbokk tabaarakallaahu di la delloo ziar di la ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu la ci sa site bi nga amee. ci barke yonent bi sa alayhi wa sallam. ngay koo xamante ni miin nañ la ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay rakk ko Aziz moo xamante ni tabaarakallaahu ñëpp ko sopp euh, sa diggante ak Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour dégg moom rek nga bëgg. waaw El Hadj ah laaj nga nag gannaaw nuyuwunu sax waaye ñu ngi nuyu mbokki internet yëpp di nuyu fa tabaarakallaahu jullit yàlla yëpp di nuyu nag taalibi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu di nuyu nag Cheikh njaboot Cheikh Sidi Hadji Malick gi yëpp radiallahu taala anhu waaw sëñ Babacar Mansour moom moom moom fa tabaarakallaahu sunu baay la sunu kilifa la sunu nijaay la sunu lépp la wallaay féete ñu fu ne nag fu ne fu ne waaw fu ne fu ne am na lu ma la léegi rek. loolu loolu dañ koy ñaanal gudd fan ak wér rek. yàlla yàggal ko yàggal taxawaayam yàlla bàyyi ko mu yàgg jiite njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ak rakkam yi topp ci ginnaawam yëpp Serigne Ba Serigne Serigne Serigne Hadji Malick si Maodo. sunu ndijaay sunu baay sunu lépp moom it fa tabaarakallah di sunu soppe noonu la ñuy ñaanal Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz tabaarakallahu moom it di sunu baay di sunu nijaay di ñaanal tamit fa tabaarakallahu Euh, sëriñ Mansour si dabbaax sunu bàyyi sunu soppi sunu lépp fa tabaarakallaahu waaw tagg yonent bi nag waa di ñaanal Abdou Aziz. lan nga bokk ak Aziz Mbaye. Abdou de moom ñoo bokk benn ndey ak benn baay tabaarakallaahu waaw. mais am benn benn benn ay boy yu ma dégg des fois dañuy wax naan. mais gars yi déglu ngeen wayu Abdou Aziz Mbaye bi baat bi ngeen di dégg ci suuf gars yi mais gars yi baat boobu ban baat la mais dama koy gëstu ban ni ma yow la grand frère. Ah, waaw déedéet ñun de ay taal ay ay taalibe rek. di topp Abdou Aziz di tamit di di ko béggee daal xam nga ñun Abdou Aziz ñi ko nit ñi soppee ni ci ci àll bi nii ñu ñuy àndal ñoo ko gën a sopp ah wallaahi la azim yéen ñaan moom guddeeg bëccëg su ñoo ko gën a bëgg képp koo xam ne si bëgg nga ko parce que li muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa koy yëg te it ko à mbokk gi laa wax de dem na mais cofeel gi na am ni ko ëmbal moo tax bu ñuy ànd ak moom di woy dañuy am courage dañ ci jàpp ak volonté ak euh, ngir sagu xadara bi sagu kër Seydi Hadji Malick sagu góor gi Moussa Alef bu ngeen def da ngeen di répété wala lu koo def mosuñu koo def loo xam ne si nag ndono la c'est la boo ko waxee rek boo yëkkatee rek ka dënd ak xam na fa nga jëm waa la loolu <laughs> boo yëkkatee dara mais Moussa Alem Mbaye maam musa Alem Mbaye am na doom ju mu neexul baat est-ce que ah Moussa Ale waaw am na ñu ciy woy nag am na ñoo xam ne si nag euh, ay intellectuel lan. waaw mën nañu nekk ay intellectuel mais mën nañoo woy dañoo préféré wul lool rek. woy lool si mën nañoo woy mais mais xam nga lu woy bi woy yi yàlla da jël euh, mission la boo xam ne yàlla moo la koy teg waaw mais am na nga xam ne si fa tabaarakallaahu bu ci ne am nga fonction mais yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi doxal sa fonction di doxal tagg yonent bi nga xam ne si moom la Moussa la bàyyeeg ñoom. a loolu moom. mais mais bëgg naa li gars yi di wax. di di ko ruumandaat ci suuf dañoo bëgg nga wayal na ko fii quoi. mooy li ngay wax ci euh, ah, ah, li gën a siiw mooy mi xilaasu zaab. fi mu waxee wal kafu darabat unsan wala zakara ما قادما عاب من عيب ولم يل مستوى والكف ما ضربت أنسا ولا ذكرت ما قادما عاب من عيب ولم يل مصفى وصليا يا إله واو وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم gaay ki ngeen doon wër nii. <laughs> grand la ma la. village man yii sax du du sama kii mais yow nag. yaa ma fekk fii rek intercepté moo ma xam ne lépp. waaw lay wër gën a gën a làqatu bi dafa doy nag. ci ak def ci la. Hmm. waaye ji ñaanal Abdou Aziz nag wax dëgg yàlla. yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér am mboolem koo xam yaa ngi tagg yeneen bi sallallahu alayhi noon noonu la ñuy ñaanal duudu kenn tamit am lañ koy ñaanal ñoom ay missionnaire lan ñoom xadara bi da leen di bëggee yàlla yàlla guddal seen fan Abdou Aziz yàlla ko yalla defal tawfiq di ñaanal tamit fa tabarakallahu xalifa Moussa Ale muy Mansour ak daaw góor ak ñi andi ñoom ñi tagg yonent bi ñëpp nag. ànd bi na trop. yow yow kontaan nañ ci yow ñu ngi lay suivre nag. kontaan nañ bu baax yow it ay laaj gis nañ li ngay couvrir bi tabarakallahu di nuyu ñëpp nag. tabarakallah salaamaaleykum mbokk yi mu ngi noonu alxaaji mi ngi jëm ak Mame Ndokh TV ki ngeen doon wër tey dama leen ko jàppal fii ci kër xalifa bi laa ko fekk nag mooy ki ngeen di wax naan mooy aw neex baat bu neex boobu ngeen di dégg suuf di ko wër grand baa ngi nii rakko Abdou Aziz Mbaye la ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mu sës ci moom rek ba përi gën nu koo sopp nag waaw bëgg yonent bi lool di grand boo xam dafa bari personnalité wallahi avant jour bi dama ko daan wax naan ko grand man dama laa bëgg parce que bari personnalité wala maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla gën laa may wér yàlla guddal sa fan barkel sa njaboot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo wax ci Seydina Mouhamed yal na ko yàlla ful def ko ay xéewal sotti ko yow ci kontaan naa trop grand merci beaucoup grand frère jërëjëf jërëjëf